bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa ashrafu lsalaati atamu taslimi ala nabiyina muhammadin wa ala wa saxaabatihi ajmain alhamdulilah jeexaloon nañu nañu démb ci kàttanul yàlla saa borom wa taala saar woo nga xam ne mooy suuratu naba ñu gën koo miine ci amma yatasaaluun ñu fa yéene cee teg saar wi nga xam ne moo ci moo ci tegu te moo di suuratu naasiaati démb waxoon nañ ne suuratu amma boo koy xool ci kaamil bi bëgg a xam fan la tollu waxoon nañ ne mi ngi tolloog saaru juróom ñaar fukk ak juróom ñett loolu nag la nga cee dégg kon mooy suuratu naasiaati boo koy wër ci kaamil bi yaa ngi koy fekk mu nekk ca juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent moom nag moo ëpp ay aaya sóoratu naba ndax moom daa bari ay aaya yu gàtt ndax suuratu naba mi ngi nekk 40 mooy ñeent fukk suuratu naasiaati teg teg na ca juróom mooy ñeent fukki aaya ak juróom ñoom ñaar ñépp nag ay makkiya lañu maanaam makka lañu wàcc démb waxoon nanu ne saar yi nga xam ne dafa wàcce makka yépp daanaka ay waaraate wàllu dekki wàllu saa boroom ni mu binde jaam ñi lépp loo xam ne day joxe tawxiid saar yooyu ca la ñuy wax kon wa bi isnaadin euh, an ibni abbasin radiallahu anhu ci la ñuy waxee maanaam euh, firi mi nga xam dañ ko jële ci ibnu abbas waaye ak yeneen boroom xam-xam nag rubama man naa am ñu waxaale ci loo xam ne sax nekku ci insha allah rabbi kon nu jottali suñu boroom subhanahu wa taala ba mu ko ubbee ni mu baaxoo ubbee saari muy suuratu annaasiaati mi ngi ko ubbee bismillahi rahmaani rahim noonu baaxoo ubbee saar mu ne wannaasiaati garqa suñ boroom day giñ ci malaaka yi nga xam ne ñooy nocc ruux yi ne wan naziaati maa ngi giñ ci malaaka yi nga xam ne ñooy nocci ruuy yéefar yi xërxan ak nocc gu metti <laughs> ndeysaan suñ boroom nag moom amul lu ko gën a màgg moo tax moom day xool ci lim bind mu di ca giñ bari na lool was samaa'i wa taariq wan najmi wa tuuri waaw yooyu yëpp moo leen bind ndax moo amul lu ko gën a kawe noonu nag bu ñuy giñ danoo war a xool loo xam ne wala boog danoo war a xool ki gën a màgg ci noon ki gën a màgg ki gën a rëy fi ñun ci kooku rek la war a giñee mooy suñu borom subhanahu wa taala moo tax sayidna Umar ibnul Xataab yàlla na ko yàlla gërëm yonent bi dakoo déggal muy giñ waaw ni koo wala fi waxe maa ngi giñ ci sama géñoog baay <laughs> yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Omar yàlla tere na leen waxu ko tere naa la de inna allaha yanhaakum an taxalifoo bi abaayikum na ngeen yëg ne bis nekk te yàlla tere na leen ngeen giñ ci seeni i baay yu baax ak seen i maam yu baax yooya waaw bàyyi leen loola ku ciy giñati daal na giñ ci suñu borom subhanahu wa taala giñ ci yàlla wala ci ay melom bu fekkee mënul loola na bañ a giñ na noppi wa man kaana xaalifan fali yaxlif billaahi aw li yasmut nun nag daanaka tabaarkàlla dañuy giñ rek te lañuy ñuy giñ la ci ëpp tabaarkàlla giñ nag lu xaw a doy yoo xam ne mën na la caa fekk bu fekkee dangaa ngiñ la dafa tebbi ko suñ borom ne wan naasiaati maa ngi giñ ci malaaka yi nocc ruux yi yéefar yi xërxan ak nocc gu metti nga xam dañ koy bif dañ koy dañ koy bif dañ koy bif bif gu mette métti an nasu moo di nocc mooy jege xëcc xëcc gu metti bif wan naashitaati nee na maa ngi giñ ci malaaka yi nga xam ne ñooy Euh, euh, nuñ ko mën a waxee sax ñooy nocci ruuxi jullit ñi waaye nag rocc gi gis nga baat bi mu jëfandikoo wan naashitaati mooy dafa mel ne dañ koo racc taloon rek gis nga racc tal boo fekkee ñu yeew dara waaye yeew gi dañ koo racc tal gis nga boo koy tekki ni muy ni muy yombe da ngay jàpp ci catul buum gi rek wëñ gi da ngay xëcc ndànk ñëw waaw malaaka yi xam ne ñooy nocc ruux jullit ñi borom xam yi nee ñu noonu lañ koy noccee ñee nag wan naziaati la wax nazu dañ koy bif waaw ñii nag wan naashitaati maa ngi giñ ci malaaka yi nga xam ne ñooy nocci ruuxi jullit ñi waaye nag naka lañ koy noccee mu ne nashtan ak rek ak ak oyofal maanaam xëcc gu yomb xëcc gu yomb ndeysaan ñu teg ibnu abbas waxe tanshitu ndeysaan dañ koy nocc ndànk dañ koy nocc ndànk ndax dafa metti nocc ndànk ndeysaan yàlla nañ yàlla def dëgg-dëgg ay jullit wasaabixaati suñ borom nee na maa ngi giñ ci malaaka yi nga xam ne dañuy sabbaal yàlla diggante asamaan ak suuf sabuxan ak sabbaal sabuxan ak sabbaal am na ñu ne wasaabixaati mooy malaaka yi nga xamee ne dañuy féey xam nga sabxu dañuy féey maanaam bu ñu noccee ruuy julli ñi ba noppi dañuy féey ndeysaan noonu ñuy naawe noonu ñu mel ne kuy féey yàkkamti ngir jëm àjjana <laughs> yàkkamti ngir jëm ngir jëm àjjana ndeysaan am na ñu ne wasfaabixaati li muy tekk mooy ñi nga xam ne ñooy fi ñooy nocci royu jullit ñi nga xam ne ñooy asfaalixuun waaw nga ne ñoom ñoo gën a sedd ñoo gën a noppale ak nocc waram xam-xam dañuy werante ci eh, tàmbali tàmbali saar bi baat yi ci ñëw waaye lii ma ci wax mooy la ci gën a siiw moom ngay fekk ca eh, téere xaaliban eh, la ci ëpp fa saabiqaati suñ borom ne mi ngi giñ ci malaaka yi nga xam ne dañuy njëkkante sabuxan ak njëkkante lu ñuy njëkkante nee ñu yasbiquuna bi arwaaxil muminin ila al janna wa arwaaxil kaafirin ila naar nee na bu ñu jëlee ruuy jullit ñi dañuy yàkkamti teel a àgg àjjana yóbbu leen ci xéewal ga loolu mooy tombeek mu demee ca defe naa suuratu Fussilat na allazina qaalu rabbuna allahu summa staqaamu tatanazzalu alayhim almalaaika allaa taxaafu wala taxzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tuadun nahnu awliyaukum ndeysaan fi lxayaati dunya wa fi l axira nee na ñi nga xam ne bi ñu nekkee àdduna danoo nangu woon ne yàlla yàlla ba noppi ne coow jaar ca yoon wa ah nee na ñooñu day bu ñu nocc seen ruuy nee na malaaka yi ñoo leen di gàttandu bala ñoo dee sax la ñuy gis malaaka yi ndeysaan bala ñoo faatu weex tar di leen bégal di leen wan ne bu leen jàq fa ngeen jëm loolu yàlla da leen koy dëfale da kiy faatu day tiit loolu du xam ndeysaan ak mu jëm fu mu nar a jëm malaaka yi dañ naa ko jëlu ngay jàq waaw nun la malaaka seeni xarit lanu malaaka yi nga xam ne ñooy malaaka yiw yi waaw di ko muuñ <laughs> yéen ñi mas a dugg avion dafa daal bu ngeen dugg ci bunt bi eh, am na ortese bu ñuy teg ci bunt bi gis nga da lay rassuré day bañ nga tiit ndax daa xaw a daa danger jëmmam ju rëy mu jekki-jekki naaw na fër na wax dëgg yàlla lu mën na caa xew te léeg-léeg nga gis ci nag yoo xam ne du la la rassuré du dëgëral sa tabarkàlla du dalal sam xel moo tax kooku di taxaw ci bunt bi boo yëgee escalier avion bay waaj a dugg ci bunt bi rek am na koy taxaw dana la muuñ muuñ goo xam ne ndeysaan di la wane ne na sa xel dal <laughs> ñoom oteste yi tubaarkàlla kon nee na malaaka yi suñ borom ne malaaka ñoo leen di naa leen déedéet bu jurut ngay tiit de waaw dëgg la lii ak dee metti na dëgg la yow mal xeyaam ak tiitaange waaye yéen da ngeen nekkaloon yàlla ci lim santaane woon fa saabiqaati way njëkkante ya sabaxan ak njëkkante ci malaaka yi bu dee ruuy yéefari tamit dañu gaaw njëkkante di ko yóbbu ca mbugal ma nee ñu waaw yàlla nañ yàlla musal waaw yàlla nañ suñ borom doolu giñ ci malaaka bi rek ne fal mu dabbiraati ak malaaka yi nga xam ne dañuy lijjanti amran ay mbir ci àdduna ci ndigalul suñu borom waaw yu dabbiruuna umuural ibaadi te neeñu neeñu mooy ñeenti malaaka yi jibril mikail israfil ak asrail jibril yor lépp lu jëm ci wàllu yónneen mikail lépp lu jëm wàllu taw beeg gàncax geeg garab yi israfil mooy tukkal àdduna ci ndigalal saa borom mooy wal buftu bi asrail moom la ñu tuddee malakul mawt qul yatawafaakum malakul mawti alladi wukkila bikum waaw moom moo leen di nee ñu ñoom la ñuy wax al mudabbiraat ñoom ñoo yor mbiri yobari suñu borom malaaka yi dañoo ay wawaif dañoo am ay lu mel ne ay post lu mel ne ay post yàlla dénk leen ko loolu nag liñ ciy jànge mooy nu dañ ciy roy yàlla daf ñuy jàngal administration waaw boo nekkee ci kër gi lu ci nekk rek amal koo ko dénk dénkal kee dépasse bi kee ne ko bu gaas bi jeexee wax ma ko kenn ko nangam del xool lépp lu setul ci kër gi kenn ko nangam loolu day oyofal mbir yanu kotu yanu yanu kotu xëddeen dañuy dañuy yëgoo loolu la wala fa wax kon mu dabbiraati amran ñoom ñooy yor mbiri jaam ñi ci ndigal saa borom di ko saytu ko settantal am ñuy bind am ñuy bind li ñuy jëf ndeysaan kon fal mu dabbiraati suñ borom ne mi ngi giñ ci malaaka yi nga xam ne ñooy saytu mbiri jaam ñi waaw ñooy saytu mbiri jaam ñi ci ndigalal saa borom ndeysaan waaye nag suñu borom moom mooy seetantalkat mooy ku makkan ak moom waaw waman yudabbirul amra ana kan mooy saytu mbir yi ana kan mooy saytu mbir yi ana kan moo koy surveiller kooku mooy suñu borom kooku mooy suñu borom ca dëgg-dëgg nag ndeysaan pour mu dabbiraati amran ndeysaan euh, boroom lan la doon giñ foofu boroom xam-xam yi nee ñu li muy giñ mooy bis pénc mooy maa ngi giñ ci malaaka yii ak jëf ju rëy yii ma leen dénk nga xam ne ku ko xool dañ ci mën a waaru ne yowmal xiyam bis la boo xam ne bis am lay doon de <laughs> moo nañu ne da da koo xasaf da koo xasaf waaw aqsama allahu bi haulaai al ashya ne anna nafqatayni la kainataan waaw baynahuma arbauna sana maanaam suñu borom dafa giñ ci li ne adduna bi dana tukki malaaka mi yor wàllu tukkal adduna muy israfil bis bu ko yàlla joxee ndigal bu ko walee rek lépp lu doon tooy wow mooy ñëpp dee nee ñu suñ borom dana toogaat ñeent fukki at at yoo xam nag moom moo xam lam atoo am na sax yonante bi sax sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne rek ñeent fukk maanaam diggante bi addunay tukki ak bi yàlla dekkale dekkale jaam ñi mooy waluk ñaareel gi ñeent fukk la waaw moo tax Seydina Abu ko laajee ko yonante bi ñeent fukk la wax ñeent fukki yi moom ñeent fukki minute laam ñeent fukki bis laam ñeent fukki weer wala ñeent fukki at man lu ma ci xam xamul daal ñeent fukk rek borom xamee ne nag ñeent fukki at la ñuy bind ci seen téere yi na baynahuma arbauna sana la ñuy bind ñoom suñu war dafa giñ ci malaaka yi ak jëf ju rëy jii mu leen dénk mission yu rëy yii ne yowmal xiyaam lu am lay doon loolu moom jëru du werante moo tax mu ne yow ma bis ba nga xamee ne tarjufu dana rëg dana férféri arraajifatu kaddu gu dëgër ga te moo di bu yàlla walee maanaam bu yàlla santaane ñu tukkal adduna bi malaaka mi bis bu walee loolu mu yor loolu mel ne ak mbiib ci misaal bu ko walee dana am yëngatu gu méttee méttee méttee méttee nga ne yeta zalzalu kullu shay'in lépp day yëngatu day yëngatu mbokk yi léeg-léeg oto yi rek xeetu camion yi am na ci camion yu gudd yoo xam ne bu nekkee sa ginnaaw gisoo leen bu jekkee-jekk daal di corné seen corné googu dana doy waar lool ndeysaan oto yi mbalit yi yàlla yàlla sàmm ña ca nekk léeg-léeg ñu ñëw ci koñ bu ñu corné waa koñ bi dañuy kaas naa ko dafa xumb te gis nga oto bi kat ni leen soree leen soree ku ñu yóbbu woon ba ca buntu saxaar ga fa corne ga di génne ñu daal koy corne nam gën a xumbe kooku ay noppam moom wax waxatuñu ko tempaay yàqu na bu yàgg malaaka yi malaaka yi bis boolee buftu bi nag dana am son bu rëy rëy boo xam kenn mësu ko biir bi boo xam ne yàlla yàlla rek moo xam ne mu toll boo xam ne moom dana tiital ñëpp ndeysaan ndeysaan nee ñu rabi àll yi nga xam ne dañ daan daw gaynde dañuy dem songu gaynde yi gaynde yi gaynde yi moom duñu leen tal <laughs> waaw ñëpp ñëw jaxasoo ni kenn ragalati kenn ndax tiit nga tiitaay nga joo xam ne doo faa def ma tar jufur raaji ba rëng-rëng bu mag boobu ñu toog nag ñeen fukki at wala ñeen fukk ni ko yonante waxee tat ba waxaa mu daat cee topp nag ar raadifatu mooy waluk ñaaral ga nga xam ne moom lañ cee toftal an nafxatu al axiratu waluk mooy wal gi nga xam ne bu ko suñ borom bu ko suñ borom santaane mboolem lu lu dee woon day daal di dekki nag ñu war a jëm ci bis penc ba su boobaa luy xew suñ borom ne xulubun ay xol yoo xam ne yow ma isin ci bis boobu waajifatun muy xaaifa aji jàq lañu waaw aji jàq la loolu nag ay xol ay xol yoo xam ne danañ tiit lool danañ jàq lool ndax lan bu dee yéeféri ñoom dañoo jàppoon ne loolu du am dañoo jàppoon ñoom luñ dekki amul lu dul ndeke dekkal nañ leen waaw bu dee ñeneen ñi man naa am jullit ñi wax dëgg yàlla seeni jëf ak fan lañ nar a jëm ak suñu borom mbiram ni mu doy waar ni mu kiimaane loolu dañu leen jàqloo xulubun ay xol yoo xam ne waajifa day jàq lool yow may suñ ci bis boobu yow mal xiyaam absaaruha seeni gis xaashiatun day toroxlu ñoom it dañuy toroxlu lool waaw léeg ndeysaan yalwaankat yi yàlla yàlla taxawu leen léeg-léeg ñu xool la buñ bëggee nga sarax la léeg-léeg xool la bët yoo xam ne bët yi rek doy na sëkk mu dëgg loo am nag mën nga leen koo jox bët yi yërëmtalu lool waa ji rek waaw am waaw seen seen seen bu ñu xoolee rek yomal xëyam koo gis rek ndeysaan ma nga bëtam mi ngi ndax ndeysaan xamagut ay luy mbiram yàlla na yàlla taxaw waay yàlla na yàlla taxaw wax nag ñoom yéefari màkka yi waaw te kañ ca jubli nee na mooy nadru nadru nadru bnul xaaris ak ñoom àndaloo am na ñu ne walid ibnu muxiira bari woon nañ saay saay soosu ñoom nag dañoo weddi dekki ñoom lu ñuy wax ñu ne a inna la mar duuna duuduuna ndax nun dañuy delloo fil xaafirati ca ginnaaw maanaam ndax bu ñu deewee dañuy dekkilaat ñu dekkaat di dund loolu mënta am waaw laajuñu de dañuy weddi waaw su àll boo xam ne inkaari la koy laaj ngir weddi ko a inna ndax nun yow Muhammad yàkk saxaaba lii ngeen bëgg a wax ak alxuraan yi nga indi kon da ngaa bëgg wax ne lamar du duuna ñun bu ñu dee dañuy delluwaat fil xaafirati ñuy dundaat ñuy dundaat ndeysaan <laughs> ay saakun naa saa yoo xam ne dañoo nekk ndax bu ñu nekkee iwaaman di ay yax naxira yu funux xam na ñu jàng naaxira nee ñu waaw bu ñu demee ba nekk ay yax yu funux ndax dañuy delloowaat <laughs> waaw moom de moom ci lool lay ci loolu lay waaroo boo demee ci ndeysaan ca sóoratu yaasin waaw sóoratu yaasin suñ borom tontu na leen foofu loolu nee ñu nadr ibnul xaaris wala boog ñenn ñu ne walid ibnul mughira da ci téere bi ma yoroon Nadr Nadr ibnul Xaaris la wax bokkoon ci kàccoor yi gën a mag nee ñu dafa for ab yeex boo xam ne yeex bu funux boo xam ne jant bi lakk na ko ba tabarkàlla ñëw ba ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wan ko ko ba yonante bi xool ko ko maanaam mu naj ko mu daal di tasaaroo mu ne ko yonante bi lii nga wax yeex yii nga wax ne suñu borom da koy dekkal yonante bi ne waaw waaw da dee ba nekk yeex ba ba ba suuf si lekk la yeex bi mel nii nga mel funuxoo suñu borom dekk laa la tàbbal la sawara <laughs> suñu borom dekkilaat la tàbbal la sawara waaw bu demee ca sooratu yaasin euh, ba muy laaj lu mel noonu alquran tudd na ko wa daraba lana masalan wa nasiya xolqa lu mu wax mu ne xaala may yuxli idaam wa hiya ramim kan moo mën a dekkale yax yi ku dee ba nekk ay yax ñu de ko kan moo ko man suñu borom ko xul tontul waa ji ko yuxyiha alladi anshaaha ki ko defaroon moo koy dekkal awwala maratin yax bii maanaam yàlla mi nga xam ne yax bi amutoon moo bind nit ki defal ko ay yax defal ko lépp loolu moo gën a jafe maanaam defar defar moo moo gën a a jafe yàq di waaw wala boo doon boo boo bëggoon defar néegum ñax dem mboobi ñëw ñu rabat ko tabaarkàlla nga def lu mel ak tóoj ñu def ko ca def nangam ba ak xoola loolu ni mettee waaye xoola bu ñu la la waxoon yàq ko rek nga ba nga jël sa pétrole ak bere almet <laughs> da ngay kos rek daal dem toog ne di naan sa café ndeysaan qul yuhiha alladi anshaaha awwala marat ne ko ki ka defaroon te njëkk koo defar te loolu moo gën a metti moo koy moo moo koy dekkilaat waxoo bi kulli bu kulli xalqin alim ndeysaan tontu na leen foofu bi sallallahu ne ko waaw suñu borom da nga dee ñu la yax yi li muy funu funu borom dana ko dekkal ay saa kunna idaaman naxira ndeysaan naka noonu boo duggee ci suuratu Saafaat laajaat nañ laaj bu mel noona <laughs> waaw ñoom mën a laaj lañ waaw ay saa mitna wa kunna turaban wa idaaman ay naa la mabuusuuna ah bu nu deewee nekk suuf ba nekk ay yax yi folox dañ fa ndax dañuy dekkal awa abaauna al awul waa suñ bàyyi ñu yàgg-yàgg ña ñooñu moom ñoo gën a garaaw moom suñ maam yu yàgg-yàggee nga xam ne moom waxuma la sax maanaam sax suuf lekk na seeni yax waaw ñoom ndax dañ leen dekkal suñ borom ne yonante bi tontu leen ne leen naam waaw yàlla dañ leen dekkal wa antum daaxiroon tey bu ngeen dekkee ñu torox ngeen di doon <laughs> waaw xul naxam li donga daaree di di bind ndeysaan xam naa firi mi suñ suñ suñ sun sun wenn wëllëre suñ benn wëllëre ndeysaan saan na ma man bi ma eh, jàngee ba xam xul naam li muy firi sax damaa waar ndax man dama daa jaay xul naam rek naan wax naan eh, ku ko lay firi <laughs> ndeysaan kon loolu la yéefari laaj ñoom gëmuñu dekk aysa mit aysa kunna idaaman naxira yoronto bi tontu leen ne xaaloo eh, xaaloo ñu ne tilka loolu déedéet yéefari ñooy wax ba léegi de xaaloo ñoom dañoo wax ne tilka lool de bu fekkee ne am na isan kon de karratun ak dellu ginnaaw xaasira gu ànd ak pertement lay doon rajaatun xaa'iba waaw loolu du am loolu mënta nekk sax waaw bu fekkee ñun ñi dara ñu dee ñu dekki laat ñu ngir dañu fay suñu jëf lool <laughs> lool du baax de tayit noonu la demee nag du baax ci ñoom ndax ñoom waajaluñ ko defuñ dara luy jëriñ yobal xam gëmuñu ne dina am ah boo toogee ci dëkk bi ñun la gaynde ngi ñëw nga ne man gawuma ko amoo lu dul gaynde gi ne tëll sa kër nga jàkkaarloog moom <laughs> ah loolu du baax de xaaloo tilka isan kon kar karratun ak dellu ak dellu lay doon ak dekk lay doon xaasira goo xam ne wax dëgg yàlla pertement dëgg lañ ci jëlee suñu borom ne fa innama hiya gis nga loolu nag du daar dellu goog dekki goog ngeen garaawal defe ne dafa dafa jafe du dara lu dul sajaratun waaxida genn wal rek lay doon maanaam su ma leen bëggee dekkal euh, su ma santee malaaka mi mu wal buftu bi rek da koy wal rek ngeen dekki maanaam du ma nekk di di leen sulleeg di leen defaraat ak déedéet ni suñ boroom di ni muy wale ñëpp dee bu walaatee ñëpp dañuy dekki di ne pul lépp seeni bàmmeel ndeysaan boo jàngee sóoratul sóoratul xamar waaw sóoratul xamar boo ko jàngee suñ boroom euh, ndeysaan wàllu dekki daal kii man la rek waaw suñ borom ma ngay leeral foofa lépp lu jëm ci wàllu wàllu dekk ak nit ñi buñ dekkee naka lañuy mel <laughs> waaw sóoratul xamar ndeysaan ci yàlla yàlla yàlla yërëm suñ boroom nee na fa tawalla anhum yowma yad'u daa'i ila shay'in nukur xushaan absaaruhum mu ne lan mu ne yaxrujuuna nit ñi dañuy génn minal ajdaa seen bàmmeeli ka annahum jaraadun muntashir mel ne euh, ay njéeréer ndeysaan naan pullet pullet pullet muhtahina ila daa waaw su ko dee yaqulu naan xaasaa yow mun asir ah, bis bi jafe na tey tey baaxul ci ñoom de bis bi bett nañu de waaw fa innama hiya eh, dekki gi du dara lu dul sajaratun ak wal rek waaye dootul benn bu simple damay wal rek ngeen dekk loolu jëfewut yéen a ko yéen xamul rek fa isaahum su ma walee nag nit ñi dekk fa isaahum amul lu dul ñoom nit ñi rek bis saahirati ña nga nekk ta eh, ndeysaan dajewukaay ba bis penc ba waaw bi ardil xashri bi ardil maxshari bokk waaw su ma walee rek nit ñëpp dekki ne pour lef bàmmeel def yaramu neen kenn du sol ay yére nag nañ nañ juddoo woon rek noonu la ñuy delloo waaye su boobaa yonante bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ko nettali sayyidatuna Aisha nag ah waa loolu góor ñi ak jigéen ñi mu ne ko lée loolu kenn dafay tal dara foofa kenn talu fa dara ndeysaan wallahu taala aalam bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah subhanaka laa cilma lanaa illaa maa callamtanaa innaka anta alcaliimu alxakiim wajcal kalaami raashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida dellu si nanu ci sunu ñaareelu xaaj ci suuratu naasiaati xam ngeen ne tàmbali woon nanu ko ci ndimbalal borom bi subhaanahu wa taala ba agsi ci fa innamaa hiya zajratun waaxida fa ida hum bisaahira ndeysaan suñ borom doon nettali bu walee buft bi waluk ñaareel gi daba bu joxee ndigal nit ñépp ñëw dekk dajaloo fas yéene ko wuy si kon loolu daanaka jàngoon nañ ci fukki laaya ci sóoratu naasiaati ak ñeent fukkeelu laaya bi ak juróom nag saa borom dafa soppi bëgg ñoo tënkal lu gàtt ci diggante Muusa ak Firawna xam nga ne Moussa na moom ñoo ëpp luñ leen tudd ci alxuraan luñ leen tudd bari na lool suñ borom di ko tudd tuddin wu neex a neex neex bu ñëwee ci saar wi indi fi lii bu ëllëgee mu indi leneen bu ëllëgee mu la am lu mu bàyyi woon wala loo xam ne koo tënkoon mu gën koo yaatal fii lim fi indi moom tënk bu gàtt gàtt gàtt gàtt la sax tënk bu gàtt bu demee ci sóoratul aaraaf sóoratul aaraaf gis nga tudd na leen fa boo demee ci euh, sóoratu Taaha gis nga tudd na ko fa boo jàngee quelque aaya mu dugg ñoom fa mu leen gën a yaatale nag nga xam ne moom foofu da ko faa tegale daanaka rek mooy sóoratul xasas waaw sóoratul xasas foofu boo fa duggee rek bu ba aay aaya bu njëkk ba bu jeexee rek day day daal di tàmbali nag waaw day daal tàmbali nag <laughs> tabarkàllah daa ne natlu alayka min naba'i Muusa wa firawna bil xaq li xaw mi yuminuun ndeysaan wala boog li xaw mi yuminuun moom nag li ci nekk ci ay njàngat ak i taxaw seetlu dafa bari lool mooy Muusa ak Firawna ak a bari waaj a tayaatu ak bari ta yaatu xëy yeneen jamono bunu yàlla defalee tawfeex ba ñu àgg ci saar yooyu moom mu gën a yaatu ndax yàlla yaatu lool la moom waaye fii borom bi da ko fee tënk <clears throat> bëgg noo yaatal bëgg noo guddal lool saa borom subhanahu wa ne hal ne hal ataaka wala boog am ñuy jàng hal ataaka hal ateeka ba tey yépp baax na hal ataaka ndax dikkal na la yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax xam nga xadiisu muusa waaw xadiisu muusa xissab yonante yàlla muusa ndax xam nga ko baatum hal ataaka wala hal ateeka baat la boo xam ne day dalay wa dalay wan ne lim lay waaj wax wax ju rëy la waaw ndax yëg nga nangam waaw su ko dee nga ne déedéet ñu mën la koo nettali ñu mën la ko ah waaye ndax yëg nga li xew nàngam loolu day day wane li muy waaj a nettali te lu am solo la lu rëy la hal ataaka ndax agsi na ci yow ndax jot nga ndax dégg nga xadiisu Muusa ndax jotoon ngaa xam xadiisu Muusa ndeysaan alayhi salaam isnaadaahu ba nga xamee ne woona ko rabbuhu boroomam bilwaadi ci xurwa almuxaddasi xurwa nga xam ne wu ñu sellal la num tudd mu ne tuwa xurwa moo tudd noonu waaw ismul waad moo di moo di moo di tuwa nee ñu yonante yu bari bari jot nañ faa jaar xur wu barkeel la xur wu xur wu barkeel la boo demee ca suuratu Taaha mu ne bilu euh, euh, tuddaat na jëmmi xur wi ci boppam tuddaat na jëmmi jëmmi xur wa nam ko waxee mooy lan euh, nam ko waxee ti mu ne inni ana rabbuka faxala'na alayka innaka bi waadil muqaddasi tuwaa gis nga mi ngi noonu kon mooy xur woowa suñ borom da ko faa woon moom yonante yàlla Muusa ngir fas yéene déenteeg moom ngir fas yéene ko won ay mbir waaye nag ngir tànn ko wa ana axtartuka dama laa tànn yow Muusa ca sóortu Taaha fa ko wax ndeysaan tabarkàlla tey kon ba ko suñ borom woowee ca xurwu sell wa naa na ba muy ñëw dana ko faaxala faaxala na alayka aja summil sa dàll yi ndax yow léegi suuf sii nga nekk bokkut ak seneen suuf loolu mooy wane ne kon ndeke suuf su yàlla barkeel ndeke am na maanaam du barab yëpp a yem am na barab yoo xam ne yàlla am na lu mu fa def lu mu deful feneen mu defe ne barab yëpp a yem summil sa dàll yi ndax kat ndax kat mi ngi soloon ay dàllam di dox waaye bi mu ñëwee rek mu ne ko summil sa dàll yi ndax innaka bil waadil muqaddas tuwa yow kat yaa ngi ci barab boo xam ne barab bu sell la xur xur woo xam ne yàlla da da def ak cell ndeysaan ak cell te bokk bokk na ca lam ko lam ko wax bari na nag foofu nag la fa xew li suñ borom dagg fii te indi ko ci yeneen barab moom ko bari na lool sax waaw bari na ak ak lu mu doon wut foofa ndeysaan lu mu wut foofa loola gudd na lool boo delloo ca euh, sóoratul xasas bi nga xam ne moom lañ nekkoon euh, moom lañ doon junj wala nga dem ca sóoratul taaha boobu nga xam ne moom lañ doon junj da nga ko ca fekk ndax na suñ borom da koo may ak nguur mu nekk di def li ñu tuddee dictature waxuma nag dictature li li tubaab li tubaab yi di tuddee dictature ñoom tubaab moom boo leen arrangé wut ñu tuddee la dictature booy doxal lislaam ñu tuddee la ko waaw bëgg laa jaxase ak adduna bi mhm. mooy koo xam ne daal dafa jàpp aw askanam di leen noot di leen nappaaje di rey di def lu ko neex firaana moom noonu la doon def alxuraan a ko seede waaw ndax nee na ah, yastadifu taifatan minhum yudabihu abnaahum wa yastahi nisaahum innahu kaana min al mufsidin moom dictateur la woon di rayaate di def lu ko neex suñ boroom nee na ma bëgg nag lii jóge fi wa nuridu an na namunna ala allasi nastudifu fi l ardi wa na najcalahum aimma wa na najcalahum alwaarisin bëgg naa lii jóge fi na mii li muy def di lor ay doomu aadama bëgg naa mu jóge fi suuf si ñu teg ko ci loxo yi set loxo yi set ndeysaan Moussa daal di juddu ca nam juddoo nettali na ko ca saara ba mu gudd def formation yàlla dogal na ñëw kër na sax la ñëw moo tax na bi Muusaa ñëwee naan ko yàllaa ma yónni dajee am jaaxal ne ko yow bërki yow bërki dem moo jaay xanaa da yow lañ yaroon fii ci pale bi alam nu rabbika fii naa walidan xale waay bërki démb yow xale bu la nekkoon fii liir sunu kanam ndax nag foofu la yaroo <laughs> ndeysaan xoolal buur bu toll Firawna ka ko war a daaneel këram la yaroo la yaroo ndeysaan cey yar sa mu màgg mbëkk la fa la yaroo ndeysaan alam nu rabbika fii naa walidan wa labista fiinaa min umri kasiir fii nga sax ay at wa faalta faalataka ne ko fii nga def tooxi doona am koo fi assassiné rey fi nit daal daw tey nga ñëwaat nag daal na yàlla la yónni <laughs> ndeysaan kon lu gudd gudd gudd la waaye fii mu ñëwee ci xur wi nag foofa ba mu demee def formation ca Shuaybu ba dëpp ànd ak njabootam ànd ak jur gu bari daa gis nag sawara mu dem di wuti sawara loolu moo ko yëkkati woon falammaa qadaa Muusa lajala wasaara bi ahlihi aanasa min jaanibi tuuri naara ci wetu xurwa fa la gis sawara wuy xuuy soo dee qaala li ahli li ahlihi mu daal di wax waa këram ni leen leen imkusu aca xaar leen ma fii ndax kat inni aanas naara maa ngi séen fële sawara kat te booba sedd na sedd bi metti na bëgg nañoo jaaru de waaw laalee aatikum minha bi xabar su ma fa demee mën naa am sax ma fekk fa ku ma gis man koo laaj fan fan mooy yoon wi mu mën ñoo gindi aw ajidu ala naari huda waxaat waxoon na lu mel noonu ci beneen barab ndeysaan aw jizwatin waaw aw jizwa aw jizwa am na foo xam am na fu mu wax ne bi xabas wala bokk ma man faa am mattu gilint mattu goo xam ne dafa yànji nga ne du gaaw a fay bu ñëwee teg ko fii jaaru ndax nag sedd bi metti na ndeysaan loolu moo ko yóbbu woon nag waaye fala ma ataha bi mu ñëwee ci xur bi nag nuudiya suñu borom daal koy woo ci la ndeysaan moom lay nettali fii nag nga ne foofa lim fi bari na waaw moom noonu lay def moom suñu borom bu indee fii lii ëllëg mu indi lee ndeysaan ba mu demee foofu suñu borom ne ko izhab na nga dem nag ilaa na jëm ci na ndax innahu na kat toga jéggi na dayo ci ak mbeew mbewte firawna fi mu toll nii moom ëpp na loxo fi mu nii moom luy jot jot na aca gaawal waaxu boo demee jéem koo woo ndeysaan na ku bon la suñ borom xam ne na ku bon la de waaye bi muy yónni Muusa Muusa ànd ak dana ko fa quulaa lahu xawlan layyinan bu ngeen demee na ngeen am discours diploma diplomatie waaw bu leen tàngal wax leen te moo ne suñ borom xam ne ni kii kàccoor bu mag la waaye teewul mu ne ko boo demee bu ngeen demee di ko woo ci yoonu yàlla waaye waaye nag kàddu ko neex waaw wuuteeg mos li xew ci jamono ji gis ñoo xam ne dañuy jàng ba ñëw ñu ne ay borom xam-xam lañ ñëw di wax ak ay jullit ñuy jaamu yàlla ñu ñëw buñ la dañuy ñëw dal seen kaw ba ba dañuy mujj xulum <laughs> waaw jàngi ñëw fekk ay nit ñoo xam ne yow da ngaa jàpp ne dañoo réer waaye ay julli lañ ñu ngi julli di góorgóorlu donte même bu fekkoon ne am na lu ñuy def loo xam ne jaaduwut fa quulaa lahu xawlan layyinan ndeysaan fa quulaa lahu ud'u ila sabili rabbika bil xikma wal maw'izati al xasan nit ki boo ko bëggee dimbali dëgg da am noo waxee ak moom waaye ñëw lu ne nga wax ko ko ab yéefar nga jaam ko xërëm nga def nangam ba nga xam ne yow da ngaa ñëw di ko jariñ si mujj ngeen xuloo nag ay saagaanteeg nangam léeg-léeg sax ñu dàq la dëkk ba <laughs> te moo ne yow ki ngay ki ngay def si daawa moom jullit la ba noppi xëy na jàpp ne am am na lu baaxul rek loola nga loolu danga mënoo koo dindi uddu yow yonante bi booy woote ila sabili rabbika si yoonu sa borom def ko bil xikma na xereñ de waaw waaraate it wala moo waaraate wu rafet waaw waaye ñëw mag ñi ay yéefar lañ nangam nangam dara baaxu fi li ñu yor dara baaxu ci daal di bëgg a indi culture naar ah moo tax coow la am kon loolu tegu ci sunna yonante bi sallallahu alayhi kon idhab ila firawna innahu taxa demal ca firawna gaaw fi mu toll nii jégg na dayow te kabbara wa kafara billah waaw weddi na yàlla dem na ba jéggi dayow ndeysaan boobu rek Muusa dana ko man kat foofa am na lu ma fa defoon de waaw rayoon naa fa nit dafa delluwaat baadu xaw a doy waar te na saay-saay la doo ma dimbali sama eh, mbokk mii di Haaroon na rek moom ku mën a wax la làmmiñ wa leer na su ko defee mu mën maa dimbali ci mission bi nga moo tax yàlla def kon ku naan nit mënta jariñ nit ah ku nekkul yonant mu ne ko saa mbokk mii daa bëgg nga boole nga boole maak moom mission bi yàlla na boole naa leen ko aca na ànd ak yow tabarkal la waaw ah, ñaanal nit ba yàlla def ko muy ab ñu daal di dem nag suñu borom ne ko bu àggee fa xul fa xul na ko na nga wax Firaawn ne ko hal laka waa xanaa jutut waaw ilaa anta zakka xalaa xanaa jutut nga defaru nag jéggi day gu ëpp na mbébte gi ëpp na ñi ngay assassiné nit ñi di leen rey ñi ngay noté nit ñi ah loolu metti na ah faqul halaka ndax daf laa ñéeru ila anta zakka nga jéem a sell nag nga jéem a sell jéem a baax lu jot jot na de waaw xanaa bëggoo sell dem sa borom man nag wa ahdiyaka dinaa la gindi man maa lay gide maa nekk mën naa nekk sab sëriñ ila rabbika jëmale ci sa borom fa taxsha su ko defee nga mën a ragal yàlla nga mën a defaru waaw fa a mën a mucc waaw dama bëgg nga soppeeku man nag li ma lay dimbalee mooy mën naa laa tarbiya ba nga nekk nit ku baax ku yiw ndeysaan waaw ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam tarbiya woon Seydina Umar ibn al-Khattab ndeysaan moom it daa jàggee woon xaw a doy waar waaye gis nga rek tabarkàlla ak ñeneen sax nag fa araahu Muusa daat koy woon al ayatal kubra kiimaan kiimaan lu mag la waaw al alaamatul al alaamatul uzma waaw nee ñu mooy yad wa mu yoroon loolu alxuraan nettali na ko ci barab yu bare bare bari waaw barab yu bari nettali nañ ko fa alxuraan nettali na ko mooy jël yan wi dóor ko ci géej gi ak jël yan wa sànni ko mu nekk jaan mm-hmm. ak it nag al ayatul kubra nee ñu ba ak loxo ba loxo bi nga xam ne Muusa bu ko dugalee ci biir bu ko génnee day leer naññ mel na ab jant waaw mel na ab jant ndeysaan ngir lan ngir Muusa xam ne kii njëbarut waaye ngir Firawna xam ne kii li mu def ci yàlla la jóge ndax lii doomu aadama gis na mënu ko waaye firawn da koo tuumaale ko lii yomb na woo ay njabar katam ndeysaan def ca lam fay def waaw kon fa araahu Moussa wan ko al ayatal kubra kiimaan la gën a maag Moussa yàlla joxoon na ko juróom-ñeenti aaya nee na waaw tisa ayatin baynaat jox naa ko juróom-ñeenti aaya yoo xam ne yëpp dafa jëm ci firawn yoo xam ne ay ay xarbaax yu mag la boo demee ci suratul araf lim nañ ko fa at-tuufaan al-jaraad al-xumbala ad-dafaadi ad-damm waaw bu ci nekk rek léeg-léeg Firaaw na ko ñaanal ñaanal sa borom insha allahu rabbi waaw la in kasafta an ar-rijsa na lak tey moom boo ñaanee ba suñ borom dindi mbott yi ne ci dëkk bi waaw ndax day def sab néeg nga ñëw bëgg a tëdd mu fees dell ki mbott nga bëgg a naan ndox ndox mi am ay mbott <laughs> ba Muusaa ñaanee mu dañ Firaaw na lànkat mujj gi mu nekk ay teeñ mujj gi mu daal indi ay yu bare bare bare na ku dëgër bopp la kon fa araahu Musaa wan ko al ayatal kubra kiimaan yu mag ya <clears throat> Firawna ndax gëm na suñ borom ne na fa kazaba mu daal di weddi waaw mu weddi Musaa li ngay def nii bàyyikul ci yàlla wa asa mu daal di mooy yàlla su ma àdd bara mu daal di wane ginnaaw daaw yes xaa di dem yoonam faale ko sax faale woo ko sax su ma àdd bara waaw ah, ibnu abbas mi ñuy xool ab tafsiram di ko ci yeneen nit su ma àdd bara mu ne arada anil yi maanaam su ma àdd bara topp mu dëndu ngëm yàlla waaw yenn boroom xam ne yasa mooy la alxuraan wax rek waaw isa tawalla fi l ardi li mooy li alxuraan wax innahu eh, min al mufsidin waaw yasa mooy dox ci suuf si ak yàq ndeysaan fa xashara mu daal di convoqué mu daal di woote conférence de presse mu daal di dajale dajale aw nitam nag fa naadaa mu daal leen xutba mu daal leen wax waxam ju siiw joojee fa xaala mu daal ne lu mën a xew daal ana man mii di firawna rabbukum maay seen borom al ala ba a kawe nag bu rëyee ngi noonu de man mii maay seen borom Moussa mi li muy woote du dëgg borom boobu muy wax loola amut benn borom ngeen am muy man njëkkoon naa wax maa alimtu lakum min ilahin gayri waaw ibnu abbas nee na booba ñoom dañ daan jaamu ay xërëm xëy na mu jublu ca nag ne mboolem seen xeetu yàlla yàlla yàllaan yi waaw seen xeetu yàlla yàllaan yi ñoom ñëpp maay seen kilifa te it maa leen moom waaw Moussa Firawna daa wax xeetam ne leen moom moo leen moom mooy seen borom baat boobu nag daa rëy nee ñu Firawna lu ne def na ko suñ borom bàyyi ko noonu waaye ba mu waxee baat booba rek fa axasahu llaahu <laughs> fa axasahu llaahu yàlla dañ koy jàpp mbugal ko nag nakaalal aaxira mbugalum àllaaxira wal óola ak adduna mbugalum adduna bi moom leer na mooy da koo labal ca ndox ma ndeysaan waaw fa xashiyahum min al yammi maa xashiyahum wa adalla firawnu xawmahu wa ma yàlla muur ko ca labal ko ca biir ndox ma moo ko ñam àndaloon waaw fa axasnaahu junuudahu ndeysaan kon suñ borom mbugal ko ñaari yoon adduna ak àllaaxira bàyyi fi néewam bi fii waaw li takkuuna liman xalfaka aaya loolu la ko wax defe naa ca sortu Yunus mu la fi bàyyi su ko defee nga nekk kiimaan nit ñi ñëw di la mën a na Firawna nañu bàyyi xel na du aw turam maanaam na mooy lu mel ne président képp ku ko toog rek président ngay tudd waaw wala député saa yoo demee ci assemblée tudd député boo fa jógee doo ko nekk nekkati boo liggéey keneen yor tur woowa ay faraay ne la woon ku mas a toog rek waaye Firawna bii nag moom moo daje woon nag Muusaa te bon lool nag te bon lool lay sànn am na ñu ko nakaalal aaxira baat bi mu mujj wax baat bi mu mujj wax te mooy lan mooy ana rabbukumul alaa may seen borom bi gën a mage wal uulaa ak baat ba mu njëkkoon a wax mooy lan mooy maa alimtu lakum min ilahin ghayr man xamuloo ma leen jenn yàlla judul man ñaari baat yooyu mu wax nee ñu yàlla jàpp borom xam-xam yi ñoo koy ñoo koy firee noonu nee na diggante nee ñu diggante ba nag eh, man naa ñeen fukki at ndeysaan suñ borom nee na inna fi zalika gis nga nekk na ci lii ma jot a nettali diggante Firawna ak Muusa la ibratan ak waaraate li man yaxsha ñeel koo xam ne xolam mi ngi dund kuy ragal yàlla waaw bu ko président yi déggee bu ko dictateur yi déggee ñuy not seen askan ñuy jàpp alali askan di ko sàcc ñuy dund ci ak ndóol ñooñu day bu fekkee ne seen xol mi ngi dund yàlla defal leen tawféex bu ñu déggee lii dana ci jëlee ak waar waaye nag ak nun ñëpp nag waaw ñun ñëpp nag ndax li muy tekk mooy la mooy Moussa ba léegi ñu ngi waxtaan ay jaar-jaaram di ko màggal fu ko tuddee nga salaam xam na nag bu ñu koy tudd ci lu bon rek lañ koy tudd mooy kon nit ki da ngay bind sa histoire ci àdduna mu fexe mu rafet waaw ndeysaan euh, sëñ Moustapha Diop kokki nee na léeg-léeg nit ki danga nga naan histoire taxawal taxawal taxawal bind ma waaw maa nit ki fi man fi ne loolu ku nekk man ko ku nekk mën ngaa fexe ba boo fi jógee ñu maanaam ñu lay waxtaane ci lu baax waaw boo fi nekkee def def fi lu baax boo fi jógee ñu lay waxtaane ci lu baax waaye nit koo xam ne defu fi dara bu fa jógee foofa lañ mën a yem diw faatu na jeex na faatu na koo xam ne bi nga nekkee àdduna lekk naan am kër am soxna kese kese amoo dara dara loo mën a liggéey la àdduna bi ba boo fi jógee ñu teg ci loo xam ne lii déwa koy liggéey ah kooku nag tabarakàlla inna fii dalika la ibratan liman yaxsha ak waarate ko rëy mi ngi ci de ak waarate ko mag a mag a mag ndeysaan mi ngi ci suñ borom subhanahu wa dellu ca yéefar ya waaw di leen fàttali ndax yéefar yi bul fàtte ne dañoo weddi woon dekki dañoo weddi woon dekki suñ boroom ne a antum ndax yéen yéefaru màkka ashaddu xalxan yéen a gën a tar ak bind maanaam bind leen ak dekkil leen moo gën a metti amis sa sama wala boog bind asamaan ah yéen ñu ne mënuñ leen a dekkel waaw yéen as defar asamaan si tiim leen nga xam ne ni mu toll ci rëyaay fu nit mën a nekk gis ko fa kenn mënta dem dem ba ne dem naa ci asamaan sa waaye yéen moom lu tax suñ borom mi def lii xanaa war na leen mën a dekkal a antum ashaddu xalqan suñ borom moo demee ca sóoratu Gaafiri nee na la xalqu samaawaati wal ard akbaru min xalqi naas bind asamaan ak suuf moo gën a moo gën a rëy moo gën a rëy bind gi ñu doomu aadama <laughs> bind gi ñu bind doomu aadama ndeysaan kon kon bu ma leen waxee dina ki bind asamaan si bind suuf si juróom-ñaari asamaan kooku de bu leen waxee dinaa leen dekkal war ngeen ko gëm war ngeen a xam ne kaman loola kay wax dëgg yàlla bind leen ak dekki leen tawu ko ndeysaan banaaha suñ borom day moo tabax asamaan si beneen barab wasamaa banay wasamaa banaynaaha bi aydin wa inna la muusiun ndeysaan ci suuratu zaariyaat ah defe naa mi ngi noonu ok wal arda farashnaaha fa ni'mal yëkkati na moom suñ borom samkaha téegam bi téeg mooy terrasse boo toogee fuñ terrasse wala boog mooy tabax bi li ko féete kaw rek moo xam dañ koo xadd moo xam moo xam kóolaas bi suñ borom moo ko yëkkati gis nga asamaan kawe lool du yàqal kenn étage boo mën a tabax dangay tabax mu dem ba ca kaw waaye doone asamaan si moo ma baare mënatumaa jàll rafa'a shamkaha fa sawaaha ndeysaan mu daan koy tàllal mu yem nag yem képp doone asamaan si côté bii daa weng fee daa nuux déedéet lépp dafa tàlliñaa yi dafa tàlliñaa yi wa aghtasha mu daal di lëndëmal laylaha guddeem ci bu guddi jotee lépp daal di lëndëm su ko defee nag ngeen mën a def li ngeen def ci guddi gi defe naa waxoon naa ko waxoon na ko ndeysaan ne bëccëg gi moom ngir wut dara la waaye guddi gi nag tabarkàlla tabarkàlla yàngoon nañ ko wa axraja mu daal di génne duhaaha leer gi am ci yoor yoor ndeysaan wal arda suuf si baada zalika ginnaaw loolu lépp duhaaha mu tàllal ko nag mu lal ko ndeysaan mu lal ko ci kaw suuf suuf si ci kaw suuf la nekk nee ñu ndeysaan mu tàllal ko cey ndeysaan léegi nag am moo tax boroom xam-xam werante ne ah waaw loolu day mel ne kon asamaan la yàlla njëkk bind ñu ne déedéet suuf si la yàlla njëkk a bind kon dafa bind suuf waaye lalu ko mu bind asamaan doog a laal suuf waaw boo demee ca sóoratu Fussilat suñ borom lool la wax ne dafa bind asamaan bind dafa bind suuf ak ya ca war a ànd yëpp doo ko dem su ma sawa ila samaa yi fa sawaahu na doo ko dem ci asamaan bind ko hmm. moo tax fii am na ñu ne wala arda baada saalika bi maanaa xabla saalika te loolu am na boo demee ci alquran wala xad katabna fi zaburi min baadi dikri baada googu nee ñu xabla la ci jublu ndax ku ne xam ne alquran moo mujj sabuur moo mujj sabuur am na ne wala arda maana saalika maa saalika lañ koy firee waaw yàlla yàlla daa xam hmm. léegi nag axraja mu daal di génne moom suñu borom minha minha ci suuf maa aha ndoxam mi muy daw teen yeeg yépp wa maraaha ak xont gi mooy xontum ñax mi mooy càmm gi mu daal ci génn ay ñax ak i gàncax ndeysaan wal jibaala montagne yi arsaaha mu samp leen ndeysaan mu dëgër këcc di dëgëral suuf si nañ ko jànge woon loolu suñ borom nee na daf koo def de mataan lakum mu nekk ak xéewal mu nekk njariñ ñeel leen yéen doomu aadama wala anaamikum ak ñeel seenug jur ndeysaan ngir mën di xéewlu seen jur di mën a xéewlu te kat jur gi yépp ngir yéen rek la waaye fa isa saa yoo xam ne dikk na ab toomatul kubra yowmal xiyaam waaw mooy xew-xew bu mag ba mooy yowmal xiyaam ah su boobaa day tabarkal la toomatul kubra bu ñëwee day loolu lépp xéewal googu ngeen am yépp da ngeen ko fi bàyyi de da faatu dekk kon nag yàlla bu leen joxee xéewal googu yi dee lañ ko ci fàttaliku waaye képp koo xam ne ngaa topp xéewalu kese gi di di xéewlu ah, ba bis ba ñëw ndeysaan ah du baax de ndeysaan yow nga xam bu ñëwee luy am mu ne yow ma yatazakkarul insaanu bis bi nga xam nit dana fàttaliku waaw dana fàttaliku am na ñu ne ay yéefar bi lañ ci jublu yéefar bi day fàttaliku maa saa la mu jëfoon waaye loolu kat ñëpp la ñëpp la waaw Ibnu Abbas ne an nadr ak ay àndandoom lañ ca jublu yow ma yatazak waaye nag aaya yi ñëpp lay waxal doomu aadama daan mboolem lu mu jëfoon lépp dana ko xam muy lu baax muy lu bon wa burrisatil jaxiim ñu daal di génne sawaraw jahannam sawaraw jaxiim bokk ñu daal koy feeñal liman liman yaraa ñeel ña ca war a dugg waaw ñooñu ko tax a jóg de noonu lañuy ñuy génnee àjjana nag ña ca war a dugg ñoom it di ko gis su boobaa lan mooy am mu ne ñaareel kuréel mooy am fa amma man ndaal képp koo xam ne toxaa dafa weddi woon yàlla dafa bewoon waaw mel ne nadr ibnul xaaris ibnu alqamata ak ñamu àndal wa aasara alxayaata dunya wa asara mu gënal alxayaatu dundiyaa dund gu soofee gii muy adduna waaw tànn adduna dafa jaay addunaam jënd ko àllaax eh, dafa jaay am jënd ko adduna man baax an waran bi du jaa fa sa yan damu te loolu koo ko def réccu kooko nu muy def mu ne fa inna la jaxiima sa waraw jaxiim hiya moom dong al waa moo di ab tappuwaayam foofa lay dëkk yàlla ci yàlla musal wa amaa man beneen kuréel bi nag mooy képp koo xam ne ndaal képp koo xam ne xaafa dafa ragal ndeysaan Euh, ak mooy yàlla dafa ragal weddi dafa ragal jikko yu ñaaw yi lu tax mu ragal ko maqaama rabbihi waaw waaw dafa xam ne dana dana taxaw ci kanamu boromam xaafa dafa ragal maqaama rabbihi taxawaay ba mu war a wéet ak boromam da koo ragal waaye ragal nga ko ragal nag da koo jaare ci bàyyi li yàlla tere ndeysaan xam ne den taxaw ci kanamu suñ borom wanaha mu daal di tere an nafsa bakkanam xanil hawa walis bànneex bu araam ndeysaan waaw ibnu abbas nee na ku mel ne Musab ibnu Umayr saxaaba bu baax boobu kooku li mbiram mu ne fa innal jannata àjjana hiya moom al waa moo di ab dëkkuwaayam moo di tàppuwaayam eh, suñ borom subhaanahu wa taala daal koy tëje nag lu jëm ci wàllu bis pénc kañ la war a ñëw loo xam ne tudd na ko ci alxuraan ay yoon mooy yes aluunaka waaw yéefare dañ daan laaj yonante bi waaw kañ la yowmal xiyaam di ñëw kañ la yowmal xiyaam di ñëw waaw suñ borom nag naan ko nee leen loolu man xaw ko waaw qul innama ilmuha inda rabbi loolu yàlla ko xam waaw loolu yàlla rek moo ko xam ndeysaan yasalunaka danañu la laaj ani saati ci bis pénc ayyaana mursaaha kañ lay taxaw waaw kañ lay taxaw laaj bi kat nekku ne dañoo bëgg a xam ne di laaju weddi la dañaa ko waa yow yaa wax ne yow bal xëy day taxaw ñi ngi ci ñi ngi ci mujjub jamono ah waaw moom xanaa du ñëw ah tee moo ñëw ndeysaan waaw loolu wolof bi faral di wax boo dee yàlla tawali xal muy baat bu mat a wattandiku loolu wolof jubluwu ci ne ca dëgg-dëgg bu fekkoon ne yàlla nga nga taxaw ci nekku ne daa bëgg ku taxaw ci ay xàll déedéet dafa xam ne doo yàlla <laughs> waaw waaye ko wax loolu yàlla loolu dee ko wax <clears throat> baat bu rafetul la baat baat bu rafetul la mu ne ko fii ma anta ana ban njariñ la amal min zikriha ci nga di ko tudd maanaam nga naan sàngam loolu ban njariñ la am ndeysaan mu demee ci alimaamu Saadi yi moo ko firee noonu fii ma anta ana lan la lay jariñ ak lan la dee ñoom min zikriha ci di ko tudd yomal xëy am kañ la defe naa ne loolu nag ba nëbb gi yàlla nëbb yomal xëy am lu baax la ci ñoom waaw waaw xoolal fi mu toll bu nu wóoroon ne ajjuma la yomal xëy di tukki rek <laughs> waaw looy talaati doo talaati dara waaw doo talaati dara doo ko talaati waaw mi ngi mel ne kuñ ne bis naa ngam ngay faatu rek kooku moom tabarkàlla waaye buñ la ko waxul nag mën ngaa nekk di liggéey def li nga war a def nangam nangam tabarkàlla ndeysaan ilaa rabbika jëm na ca suñ borom wala nekk na ca moom muntahaha ak xamam mooy ilmu qiyaamiha ni ko ibnu abbas waxee suñ borom moo ko xam innama anta yow daal munziru man ab waaraatekat nga da ngay waar ka nga xam ne yaxshaaha dana ragal taxawaayu bis penc wala nga ne munzirun waaw ab waaraate man koo xam ne yaxshaaha dana ragal bis penc ñoo xam ne dañ koo idaafa ndeysaan waaw ñi nga xam ne ñoom gëm nañ ne buñ dee danañ dekk taxaw ci kanamu suñ borom ñooña seenu sag waaraate ñooña la mën a jariñ waaye yéefari ka annahum dafa mel na ñoom yow ma yaraw naa bis ba ñuy gis bis ba nga xam ne bis penc dana ñëw ca ñoom dana leen bett lool waaye su boobaa day gaaw lool ba yalbasu dafa mel ne lam yalbasu mësuñoo sax ci bàmmeel yi mësuñoo sax ci adduna illaa ashiyatan lu du sax ni suuf aw wala ak yoor yoor rek ndeysaan maanaam yéefar yi yow man xeex buy taxaw da leen di bett lool da leen di bett ndeysaan waaw ñu naan waa noonu yaa waylanaa man ba'asanaa min marqadinaa ñun kan moo ñu yee suñ bàmmeel yi te leen di bett ndax ñoom gëmuñu ko woon ndeysaan su boobaa nag day mel ni adduna luñ fi sax sax dafa mel ne dañoo dañoo dugg ci bàmmeel bi ak ngoon rek ñu dekkal leen waaw adduna liñ fi yendu dafa mel ni benn bis la <laughs> waaw ndeysaan adduna mi ngi noonu adduna mi ngi noonu moo demee ca sóoratul mu'minuun gis nga euh, kam labistum gaa yi lu ñu wax labis naa yow man aw baax ba'da yow bañ leen dekkalee fas alila aadin waaw ñaata ngeen saxoon àdduna ñu ne xam naa ne bu baree ba bari bisa xaaj euh, wala wala boog ab bis donc déedéet dañu sax bis wala genn wala bis waaw bis wala genn wala bis waaw ka annahum yawma yarawnaha bis bu saa di ñëw ci ñoom dana leen bett de day mel ne lam yalbasu mësuñoo sax ci àdduna wala ci seen bàmmeel yi illaa ashiyatan lu dul ak ginnaaw takkusaan rek ak ngoon rek aw duhaahaa wala ak Ah, foofu la eh, saar wi yam lépp lu ci jub ci suñ borom la lépp lu ci dëng nag ci matat doomu aadama la allahuma salli ala muhammadin wa ali muhammad